mbokk yi salaamaaleykum ñoo ngi leen di siyaarewaat bu baax a baax di leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen dalak jàmm ci seen beneen numéro seen émission rétro musique bii nag bu spécial la parce que dañuy doog a jóge ci tabaski ñu ngi baalu ñëpp àq nag di baal ñëpp àq di ñaan yàlla yàlla ñu ko fekk at yu baree bari ci barke Seydina Mohamed alayhi salaatu salaam yàlla defal ñu jàmm def ko ci réew mi def ko ci xel yi ak ci xol yi def ko ci entreprise yi def ko ci famille yi ba ci chantier yi ak fépp képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi ñu ngi lay ñaanal di la baalu àq di la baaluwaat àq ndax àq dafa sew ndax ñu nag yéen ñoo dëkk daanaka dañuy dugg ci seen i salon di leen fekk seen i kër di leen fekk seen bërëb liggéeyukaay moo tax ñu ngi baalu àq ñëpp képp koo xam ne ñoo ngi liggéeyandoo ak yow sur la RTS ñu ngi lay baalu àq di baalu àq les caméraman di baalu àq les réalisateurs les caméra women également ku ci mel ni sama jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci caméra yi tey boola madame Ndiaye nekk ci caméra bi macha allah ma koy baalu àq di ko ziare waat bu baax a baax sama beneen jigéen Khadija nekk nag ci beneen caméra bi mooy ma koy baalu ak bu baax a baax di baalu ak yi sunu caméraman yi ko ci mel ni Ndiaga Sindidi di sunu xarit Cissé Ndiaga Cissé ñu ngi lay ziar baax a baax di baalu ñëpp ak jël nuyoo bi teg ko ci le directeur général de la RTS monsieur Racine Talla waaye di nuyu l' ensemble des di nuyu ñi nga xam ne ñoo yor wàllu montage bi ku ci mel ni prési Youssou Gueye sunu grand ah nga xam ne macha allah moo nekk ci kanam xale yi topp ci ginnaawam di liggéey liggéey bu rafet Youssou Gueye ñu ngi lay ziar di la baalu ak bi di la ñaanal gudd fan ak wér di nuyu waa décor di leen ziar baax a baax nuyu waa lumière ah waa administration ñëpp bàyyiwuñu kenn mbokk yi naa leen dañuy doog a tàmbali waaye nag bu ñuy tàmbali dañuy tàmbalee morceau boo xam ne chaque tabaski morceau boobu day def vogue day nekk devant day nekk ci bac euh, li nga xam ne mooy bac office yi ni koy waxee kon nag morceau boobu moo nekk tabaski bu Youssou maa jigéen Ndour moom moo ko wayoon te boobu léegi way wa fayul Abdallah ñu ngi lay ziar bu baax a baax ci montage bi di nuyu bu baax a baax ki nga xam ne moo nekk ci son bi muy Nicole ak ànd ceeg Abdou Mbow nañ dem seeti Youssou Ndour morceau baa ngi tudd tabaski di balu ñep ak di bal ñep ak yàlla nañu yàlla boole Thank ya, you. noonu Youssou maa jigéen ñu koy may suñu xarit Mouri Mouri nekk fii ci RTS macha allah nekk xale bu am jom nangoo liggéey ñu ngi koy ziar baax a baax di nuyu nag maa Abdou un grand caméraman macha allah waaye aussi nekk un bon monteur ah nekk na fi nga xam ne mooy euh, vidéo mobile maa Abdou boo gisee ma koy tudd tout le dafa nekk xale boo xam ne dafa sawar macha allah vidéo mobile la nekk mais su ñëwee fekk ngay déplacé dara day ànd ak yow jàppale si parce que dafa gëm ne RTS lay liggéeyee moom neewul man lii rek laay def bàyyi ko mais dama ciy jàpp ci liggéey Momar Ndiaye aussi ñu ngi koy gërëm di ko baalu àq ci tabaski bi gis vraiment teraanga yi ni mu ci tabaski bi gis nañ ni nga ci jàppee parce que nag ku ko def ku ko wax la bëgg Momar yal na yàlla dafa la jàmm guddal sa fan yokk la wér Momar Ndiaye dëkk Medina doon ndaw baax lool nekk directeur de la photo fii ci RTS ni ki bu ko defee da nga koy wax parce que nag képp koo xam ne déggoo tur ci émission bi rek xamal ne defoo dara ndax ku deful dara doo dégg dara damay nga naan non Horatio tudduma waaye su ma la tuddul c'est parce que ñëwoo ko arrivé daal naa la tudd ndax dinaa ñëw ci Cheikh Mbacké finance maanaam koo koy séeri boola dinaa ci ñëw ak ñoom Khadija ak ñeneen ñi waaye may wax ne macha allah Omar Ndiaye moo nekk ci bi waaye nag tey mbokk yi sama habillé bii ngeen gis tey bu ngeen xoolee grand boubou ak taay bi xam ne Omar Ndiaye moom habillé Omar Ndiaye borom njaareem Omar Ndiaye borom Jurbel Omar Ndiaye le grand réalisateur nii la julee tabaski bi ñu jullee ba ci suba gi dama ko envoyé par GP depuis Diourbel dama Horatio solal lii yow laa ko habillé Ndiaga Sididi gis nga sa grand frère li mu def gis nga réalisateur bu mag bi ci RTS li mu def jël yërëm tabaskiyam jox ma na ma defee ko émission Abdallah dinaa ñëw ci li nga def ci teraanga waaye nag dañuy dem seetali keneen koo xam ne mi ngi woon suñu biir comme ni ma koy waxee rek bànneex ak naqar ñoo ànd nit mën naa nekk ak yow nga xëy xëy bis gisatoo ko donc ñi ngi jaale képp koo xamante ne bi fekk woo tabaski ren bi yàlla na yàlla xaare la àjjana ñun ñu fi desit yàlla nañ yàlla bàyyi ñu koy fete at yu baree baree bëri nañ dem seeti morceau boo xam ne boobu ay danseur yu mag léegi sax ay kilifa yu mag lañ macha allah ñoo ko fecc mooy Amady Badiane Amet Thiou Papa Ndiaye Thiou morceau bi nag Doudou Sow moo ko woyoon mi ngi tudd fàttaliku boobu ci lañ doon wax Wadada obligé moo koy may bu baax a baax les mélomanes du Sénégal jël leen morceau bi Bridge Falilou Laay ak ki nga xam ne mooy Abba Laay waaye di ko may ki nga xam ne mooy Malick Sy sama copain doomu ndey as the best waaye nag di ko may ki nga xamante ne bii mooy borom France borom Allemagne borom Italie macha allah kooku nag mooy ki nga xam ne mooy Ange Djibril ak Rama ak Notting Heads may naa leen ko ñu dem seeti Doudou Sow Wadada obligé. mu nekkoon ko morceau bu neex bu amoon ay temps mbokk yi macha allah gis ngeen nag tabaski bi passé na moo tax ki nga xamante ne bii mooy boola. dama koy gërëm bu baax a baax ma ram Ndiaye jus yu bari dama envoyé dama Horatio tabaski gi xam naa ne ndawal moom incha allah rabbi di nga ko doyal moo tax ma jël jus bi bisaab andil la ko. waaye nag ñuy gërëm bu baax a baax sunu partenaire bi nga xam ne mi ñuy accompagner presque tous les mois dafiy ñëw jaar fi kooku nag mooy Casamance nga xam ne ñëw na fi keroog. ñu koy gërëm bu baax a baax di ko sant bu baax a baax di ñaanal bu baax a baax service commercial yàlla gën a wéral liggéey bi gën leen a jàppale madame Potin mi leen jiite ñu ngi koy nuyu bu baax a baax madame Potin ñi ngi lay gërëm bu baax di la sant waaye également di gërëm ñi ngi lay liggéeyandool ku ci mel ne Soukayna madame Ndiaye ñu ngi koy ziar ah madame nekk foofu tamit service commercial waaye ki nga xam ne mooy madame Jagana muy euh, ki nga xam mooy jabu ñu ngi koy ziar di nuyu Karim ñoom Adja macha allah di nuyu ñoom Njéeme ñi fa nekk ñëpp ah ñoom ki nga xamante ne mooy madame Dieye ah malado di nuyu baax a baax am soto ñëpp waa service commercial daal bàyyiwuñu kenn ñoom Mamor ñu ngi leen ziar bu baax a baax léegi nag mbokk yi sans plus tarder tabaski gi nee naa la passé na dañuy naan suñu bisaab daal di koy sérité waaye dañ ciy ànd ak kan kooku mooy kan borom maquillage ndax tabaski bi gis naa ci xeeti maquillage yoo xam ne boo la su ma la ko nettalee da ngay ree ba sa reetaan di ree waaye tabaski bi ren maquillage bi ñu jël ay xale yi ak ay raw xeer la xale yi jël ay waa ñun suñu maam ay mëgg ay renversé ay cukudum ay live lañ jëloon waaye xale yi léegi raw xeer lañ jël woy sama day seeti ki nga mooy Alé Dieng Alé Dieng le grand chanteur Alé Dieng nag jamono yii mi ngi tourné si ay boîte yu bari di jouer un peu partout à Dakar Alé Dieng moo ami Alé Dieng le grand artiste Alé Dieng seeti maquillage moo ko woyoon ñu seeti ko te ñëw man naan sama bisaab en attendant digérer samay xar de mai baby na mai Unde pete soba ngon yau la halat Ya kuma tu kuma kala Kul yafi wata de jala gende yau la jene Chiri boy la kai ka wa la lilu don Wata na nit la olá, bagan, halebe, halebe, halebe, de yara nam. ma am nga fulla ba kenn la bis doy nga ma tonton ale yow na nga def nga mbëggal yow nga yow na nga ma yëngal sama gesta gi damay bébi naxumaay guddeeg bëccëg suba ngoon yow lay xalaat du ma foowee mbëggeel du ah. ma kafee mbëggeel wuy mbëggeel manang mbëggeel ku la maquillage ku la doon baare ku la ko ci biir ba gone gi moom de lor na ma xanaa kula to ko bada mo la bula de de won ko bula kula makiale kula don bare kula pa chapal chapal chapal dama ne du yaa rafet du yaa bari jàmm du yaa neex a góor jekk taxawaay kanam gi ne gaañi ba di ne weeru xeetu ma ni boo tukkee ba fa yàgg ndax kilifa nga bu la compte jàmm bu la baaga laal lay set araam na la waaye jëkkër dagan na la naa is jëkkër dagan xaw ma ku la ko capal ci biir ba waaye man de tooñ na ma eh yow moo la tooñ waaye déedéet tooñu la kat sa kanam gi sa kanam gi ma may tere nelaw chéri kako ku la ko capal de tooñ na ma yow tooñ ko jege si yow jege si jege la ragajul te jege ma xale bi taamu naa la ragajul jege man ndax am nga filim baaju rek a Ayda Benga bëgg na Iliman bëgg nañoo Bachiri la koy woowee yaayu góora soppe la koy woowee Amino bëgg na xale yi

rafet du yaa bari jàmm du yaa neex a bon njëkk taxawaay kanam gi ne gaañ ñi ko ci ne weeru feeñ du ma ni boo tukkee bu ko yàgg ndax kilifa nga bu la foog jàmm bu la taakalaal la set araam na la waaye jëkkër dagan na la naay jëkkër dagan ko la ko jàppal ci biir ba waaye tooñ na ma ragajul ragajul xale bi taamu ragajul ragajul xale bi ragajul ragajul ànd ak sa maquillage ragajul ma tàggoog sama sago macha allah jamonoy kermesse jamonoy xumbal ñu ko daan fecc bu baax a baax rawatina sama grand frère yi nga xam ne ñoo nekkandoo na ñoom yëmbal tabaski bu musaana passé lana mais tabaski ñooy yendoondoo nekk ci koñ bi grand yooyu ñu leen di ziyaare ñoom ñëpp ñu nekk suñuy mag nag boola ñu leen di nuyu baax leen rendre hommage ku ci mel ni grand Issa Wade ca macha allah di ànd ak Matar ah, ñu koy ziar baax a baax ak ñoom Bas Nuum li ñoom ñëpp ñu leen di ziar Issa Wade grand Issa ñu ngi lay ziar Assane Diallo aussi di suñu grand frère grand ñu ngi lay ziar ah ñoom Ansou ah nekk ak ñoom macha allah ñoom Ansu nekk ci koñ ba macha allah ñoom euh, honoré honoré Mendy honoré Gomis honoré Correa sama grand honoré maa ngi lay ziar waaye Baye Sayer kenn du ko fàtte Baye Sayer Thiam aussi di suñu grand ñu koy ziar di ziar Baye Sey Baye Sey doomu ndey Mao Seck Mao Fall Baye Sey ñu ngi lay ziar baax Cheikh Sylla aussi ñu ngi koy ziar baax a baax Cheikh Sylla Adama Diagne grand Adama Diagne jamono boobu koñ ba ñëpp ñoo doon àndandoo ah ñoom Baye Ada macha allah dëkk ci koñ bi ak ñoom Baye Mbaye Diouf ñu leen di ziar baax a baax di ñaanal suñu frère Mor Thian yàlla na ko yàlla xaare àjjana mooy bu nekkoon ci koñ bi ah ñoom Birane ñaa Albert Birane mon ami Magu Njaga ñaa ñu ngi baax a baax rek Cheikh Naar ñu ngi lay ziar ñoom Diouma Bari macha allah koñ ma daal neexoon na ñoom Pa Yaali daan fa fréquenté ñoom Iwil Njaga macha allah ñoom Prosper Bour Bour Mendy macha allah ñoom Paul Sefa ah jamono ñoom Ambu ñoom Edu Paul ñoom Gérard Robert Antoine ko ñu njaagol daal boo xam dafa àndoon ak ay chrétiens ak ay musulmans dëkkandoo ah ñoom Benjamin Gomis Michel Lejeune ah ñoom Grand Frou Frou Mose Mendy ba mu tukkee ba léegi macha allah ñu ngi koy namm ñoom ñoom Pili Pili sunu mag la ak Nene ak Picca Mbaaw ak Polina maanaam koñ bi daal ñun ñëpp benn lañ woon tabaski dañ daan teg bool yi chrétien musulman ñëpp partagé loolu nag yëmbal la xewee macha allah mu nekk quartier bu neex macha allah ñoom Pape Bana nekkoon fa ak sama ah, ñoom Baba Kita gars yi ñu leen ziar léegi bi nag Khadija dama ci defal lu particulier Khadija la grande caméra woman waye bala ma ñëw ci loolu dama bëgg ñu dem seeti ben morceau mu ñew net leen li Khadija def mbokk yi bu leen décrocher morceau bi bala bu jeexee tok leen yeen ñep seen salle yok seen télé ma wax leen li Khadija def ci tabaski bi kookoy doomu nday boola nañ dem seeti Fallou Dieng Fallou Dieng Mister Yoxosu lay waxal ndax xam ngeen tabaski bi kat avant moo ñëw am na ay yoxosumaan yu doon jéem a yoxosu di yoxosu ay xaru jàmbur ñii di yoxosu ay ngooñu jàmbur waaye bañ leen jàppee dañ leen nuus ne leen napp ne leen ràpp ne leen karaj kon nag ñu dem seeti mista yoxosu Fallou Dieng nee na mista yoxosu moytul ñu dem seeti ko na ñëw boola ma wax sa doomu nday Khadija lam def ca tabaski ba nii la demee ndawal su la taxee fekk ñi mu taxaw nga di ko galgal sa tànk dama bëgg ndawal nuyu bu baax a baax a baax Fallou Dieng Fallou Dieng Saala way ndee macha allah ah Thialou Coroma jigéen Fallou Dieng di grand artiste di ndaanaan bu mag ñu koy nuyuwaat bu baax a baax di ko ziare di ko baaluwaat ak si tabaski bi di baalu suñu xarit yi suñu waajur yi papa ak yaay di leen baaluwaat baax baaluwaat xarit yi Khadija li mu des tabaski bi foog ma pause tuuti doo ci ñëw ndax wax ju rëy la waaye balaa boobu njëkk si nit yi nañ dem seeti Viviane wayoon na fi décoré Khadija tey dama lay décorer ci émission bi en présence de tes amis et de ta famille et de tes collègues ñu dem seeti décorer Abdallah ñëwaat léegi léegi ma décorer Khadija. la Khadija li moo tax ma lay décorer Khadija macha allah gis naa xar mi ma jox ci tabaski bi bu la neexoon ne ma Horatio du ma sa directeur sa collègue laa rek waaye yàgg boola madame Ndiaye da ngeen boole seen buy ak seen Dakar. ak seen suukar ak seen meew njambaan manam mbaxal ko jëndal ma xar kon Khadija yalla bo telaw di xaran Khadija soxna bi nga yor pour bi yalla bu mu xar la yow mi ma jëndal xar yalla bo nelaw di xaran la yalla bo dem bay xaaraan sa pono auto bi yalla bu mu xar yalla yalla fa lañ jam Khadija kontaan si yow trop jigen du mën gor jambar nangoo liggéey góor baax na jigéen baax yalla la kontaan naa yow de waaye nuyu nag Père ale waalo waalo bu mag bi la grand caméraman Père Allé waalo la tabaskee ba léegi ñëwagul ma nga waalo nee na ma man waalo laay tabaskee su ma jógee dem Dagana dem Rissaatol dem Rosso dem Ñandaan wër dëkk yooyu yëpp waaye fan laay mujjee mu ne ma Saint-Louis ma ne ko loo fay dem mu ma seeti sama doomu ndey Mama Moussa ñaa ma ne ko boo fa jógee fooy dem mu ne ma Rosso ma ne ko Père Allé waalo waalo bu mag bi Yirim Mbagnick Mbodj yëligi ma ñu ngi may sa daaru wuri ma ñaag buri ma xeex wala ba mu lew bakkarek dara ñaag njaga père Alé noonu le grand caméraman liggéey ne pat boole koog wax boole koog wax paa baax ngi noonu léegi dem seeti Aline Mbaye Nder fàttalikul doom nit ku dul fàttaliku baaxoo waaye fàttewu mu mukk des racines tala cey li nga def kenn du ko fàtte te dinaa ko wax bu morceau bi jeex boo nekkee ci benn métier fexe di ci progresser di yokk sa xam-xam c'est important baax na yal n yàlla defal jàmm waaye di nuyu sa nekk ci drone yi macha allah xam naa ne des na tuuti damay ragal waa administration sax naawal drone man drone damaa yaakaar ne am lu ci nekk gars yi bu ñu naawalee drone ci kaw dañuy ajiwaale ay mango foofu. keroog maa ngi gis ndeysaan Ousmane Ngari Faye directeur de l'information yor drone di ko naawal ma ne ko bu yàggee ñëpp nekk ay doon ko drone. Abdallah nag sama xarit sama doomu nday morso bii di ñëw Omar Ndiaye sama xarit sama doomu nday yàlla yàlla defal la jàmm maa ngi lay ziar. morso bi nag di ko may sama xarit sama grand frère sama confident ni ku baax kooku mooy Bokum Diouf. frère pa Bokar Diouf ñoko Demba ak Bokar ma jor nga ñaaxaar fami nga bol tol ak toute la famille Diouf di may mayan sen mag bu jigen sen sœur di ñaanal sunu wajur bu jigen ba ya su sen yalla na yalla xari aljana di len ñaanal bu baax baax yaay Fatou sen sunu yaay yalla na yalla xari aljana koko yaay Bokum Diouf yaay pa Bokar ak yaayu ins ah macha allah ñu wat bu baax baax souleyman Diouf di ko ziar baax a baax di ziar Elimane waaye Baye Sall duñ la fàtte macha allah ñu ngi leen nuyu toute la famille Diouf leen may morceau Pape Diouf bi nag morceau bi nag moo ngi joletaal ñoo ko andoon waaye moo koy may sama xarit sama jumeau Demba War Sall borom Pikine ah kookoy doomu yaay caat kookoy doomu nday Apa kookoy doomu ndeyu ki nga xamante ne mooy nday Awa Sall waaye doomu nday ngoone ngoone bor ba xanaa di ko éliminer benn yoon ngoone ah bor bi ma la yoraloon xa dédicace baa ngi ne xanaa dañ ko effacé ngone sama xuloowaale borom Pikine borom syndicat macha allah ñu dem seeti Pape Diouf kas kas kas tout di daal di fàttaliku démb Pape Diouf séeri bébé baas Baye Mohamed borom ginnaaw raay ñu dem te ñëw waay ñu njaaba njalee tabaski passé na pression yi bari wàññeeku na borom kër yi doon dañ dañu di daw tabaski benn fan la yàlla def na mu jeex madame si ñu ngi lay ziar baax a baax di jigéen macha allah borom voile bu rafet bi di la nuyu waye di wax ne bu len fàtte Matar dien mo nek ci vidéo bi Matar dien nit ku bax yarou yiw fu mu la romb lu mu xarxar da lay nuyu RTS c'est une famille yalla ya defal ñëpp jamm waye di nuyu directeur télévision dakhaba di nuyu aussi mon ami waye Momar Ndiaye teraanga jig mo defal tabaski bi du ma ko faté Momar ndjay yalla yalla defal la cat doomu ndeyu Cheikh Sadbu waye Cheikh Cheikh Sadbu fu ne Cheikh Sadbu deux mois gisuma Cheikh Sadbu ay Cheikh Sadbu Cheikh Sadbu gay réalisateur fo ne tabaski bi Cheikh Saad bu du message du appel mais yàlla bana na léegi nag mbokk yi ñu dem seeti beneen morceau bo xamante ne Abou Djoubaade de ki nak ngi koy may madame le maire de Wakhinane Nimzatt kooku mooy ajaratu Kadia Talla kooku madame DG Racine Talla macha allah ma di may morceau Abou de bi di ko may képp ko xam ne pël nga wala ngay morceau bi ngi Gidia Leñol Gidia leñol su ma juumee ngeen baal ma ni ma ko prononcé waaye bu doon maay abdoulaye dama daan géej a leeñol morso baa ngi tudd géej a leeñol di ko may Cheikh Mbacke Cheikh Boola ñoo ñaar dañoo nobante dañoo buggante kon nag ma koy may DG Racine Talla di ko may Daxa ba Ousmane si ak képp kuy alpulaar géeja leeñol abu juba de ñu dem seeti côté ñëw abdallah barke yum mam baaba a nanaani ay dara astafurlah a nanaani pulaar Şey gidem gidem gidem gidem gidem gidem Dilleyor Şey gidem gidem gidem gidem gidem gidem Dilleyenler Adamı balderino Eylino Yokul benden went to an in the garden. ayca mi ngi noonu macha allah Abu Jubaade à l'instant ma koy may képp kuy apulaar macha allah di la bëgg baax a baax di nuyu ñoom ana ana ay Aysatu nekk fi nga xam ne mooy protocole waaye di nuyu waat baax a baax waa décor ak ñëpp Omar Ndiaye le grand réalisateur nee na amuñu temps bari parce que tabaski la jógee dañuy jongé waaye nuyu naa sama xarit yi waa tool ba ki ne gay maa lay ziar Ndew Ndiaye maa lay ziar soxna Ndiaye Sëri Jaaji maa ngi lay ziar di ziar waa kër yëpp ñoom maam jaara ñoom Adja ah ñoom caat di ziare ñëpp waaye sama xarit ñoom Youssou Youssou Diop Ousseynou Diop ñoom Thierno Ndiaye ñoom Pape Bey ñoom Mbacke ah ñoom ñoom ñoom Lamine macha allah sunu xale yooyu ñu leen ni baax waa koñ bi yëpp léegi nag man dem seeti ki nga xamante ne bii mooy artiste bu mag morceau bi nag sama grand frère moom ma ko ñaan Mbaye juuf di taaw bu njëkk a judd njëkk a baax baax loolu dañu suivre dañu jox ay conseil ci émission rétro bi muy sunu mag ñu bokk ndey ak baay mu fonk ñu trop di grand frère bu baax vraiment di jox ay conseils yu am solo ndax ñun ay rakam lañ vraiment am na ay conseils yu baax léegi nag ñoom seeti morceau keroog dañoo toog di waxtaan mu ne ma est ce que Horatio yaa ngi sóoraale morceau Ndiogou mën naa ko njogu wax nga dëgg de mu a ma Ndiogou la intéressé artiste la woon boo xam ne dafa jékki-jékki rek gars yi seen ko ci paysage médiatique bi ak musical bi mais jot na fi bàyyi dara yàggu fi nag yàlla na ko yàlla xaaree àjjana mais bàyyi na fi dara nañ dem seeti Ndiogou daal di ñëwaat moo koy may grand frère boobu di Mbaye Diouf dëkk ca kër ga koo koy bàyyi maam Ceena ak Ndey Awa ak maam Kumba ñu dem seeti ko te ñëwaat léegi léegi Njóogu. ayca mi ngi noonu njoogu lu la intéressé bu ko yóbbu mu nekk way boo xam ne dawoon na yaram vraiment ñu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana waaye nuy waat suñu xarit yeeg partenaires yi Pape Fall xarit borom boiserie yaa na fi Pape Fall ngi lay ziar vraiment gis nañ tabaski bi macha allah li ci def lépp yàlla na yàlla sàmm dafa la jàmm Pape Fall notre ami macha allah di nuyu nag Lamine Samb di liggéeyandoo ak moom waaye di nuyu Sukay Pape Fall di ku baax tabaski bi gis nañ effort yi mu def macha allah ci wàllu liggéeyam ci wàllu jàppale doomu aadama yi ah doomu nday Lamine géey boroom caaro yi ah doomu nday Sidi Mbaye ñu ngi lay ziar baax a baax waaye di nuyuwaat baax baax suñu xarit yëpp am di jàmm yi Pape Fall ñu lay bu baax borom boiserie yaa na fi yàlla na defal la jàmm doomu yaa nafi fi jooju ni nuyu sa yi ngay liggéey dool ak sa employé yëpp léegi mbokk yi sans plus dañuy dem ndax xam ngeen léegi añ jot te fan yi yëpp laax laay añ bi tabaski passé ba léegi laax rek laalu ma leen sénégalais mooy toog at du lekk yàpp benn jour mu lekk yàpp su bëggee mu ne non yàpp damaa soof damay añee laax quoi loolu moom Sénégal la am yal na yàlla defal ñëpp jàmm léegi njaga da dem seeti Pape Thiopet ndax ñëpp xam nañ ne tabaski bi am na ñu si am problème ak seen tailleur morceau bi nag Alpha laa koy may nekk fii ci RTS macha allah di fi liggéeyee saba sama doomu ndey alfa ñaawam daa tardé woon Alpha waaye ba mu demee xoj tailleur bi tailleur bi daa defar ñaw bi ci saa ci xoj bi ci xoj bi la ko tailleur bi ñawee ci bi ko xojee la tailleur bi ñaw ñaw bi jox ko ko mu sol Alpha doomu ndayu ki nga xamante ne bii mooy Mor Cissé. Mor Cissé sama copain doomu ndeyu ñaa borom sécurité bi borom ñaa borom vidéo mobile ah gars yi ñoo yor wàllu décor nekk ci vidéo mobile ak liggéey bi yëpp yëpp ànd ak Momar Ndiaye ñu dem seeti Pape Coppet tailleur man de Omar Ndiaye lii la ma sañjel tabaski bi Omar Ndiaye sa tailleur naxu la sa daamine fees na sa ñaw jot na astafurla sa ñaw jot na ci yow waaye ci man jotul boola ñu dem seeti tailleur te ñëw Pape Ndiaye Coppet Abdallah acteur bu la lenn kambe yaa biir kama wala jaaro sama mbase mbokk yaa ngi noonu émission baa ngi noonu macha allah mi ngi waaj a jeex nag naa leen ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm yàlla nañ fekkee bi at yu bari képp ku amoon jafe ren yàlla na ko yàlla réglé ñu nekk ci hôpitaux yi nga xam dañoo feebaroon yàlla na yàlla yëkkati leen si jàmm ñu wér ñu nekk ci lieu de détention yi prison yi yàlla na yàlla génn leen si jàmm tabaski nag feet la boo xam ne feetu baalonte ak la buñ ci jógee nañu gën a defaraat jikko yi gën a defaraat taxawaay mashallah allah di kontaanee sunu xarit yep am di jam yep di ñaanal ñep jam di bëgg ñep di wax na nag dañuy dem séti wat ko xamanteni bi wayon na fi lu rëy ba tay ji Ameth Thiou fecc na ca di bayan fecc na ca kookoy Bastaay yëngal na rafé yëngal na pikin yëngal na gën yëmbal Malika Béné Baraak Keur Massar ñàkk ñàkkorom Mboro Bayax Bambilor ko Kousanaar yoru Sogi Matam jobe Lam Lam ak chali nañ dem seeti Bastaay li ci mbëggeel ji li fecc na ca morso ba ñu dem ñëw séti ko noonu bastaay morceau baa ngi tudd mbëggeel ñu siy may suñu xarit yëpp kon nag yàlla yàlla def mbëggeel ci xol yi ah, di leen gërëm bu baax a baax di leen sant di gërëm service programme macha allah nuyu waa réalisation waa décor waa lumière di leen gërëm bu baax baax lumière yi nag seen moo ci nekkoon ci émission bi mbokk yi dañ leen di tàggu di leen jox rendez-vous très bientôt incha allah rabbi di kontaanaat ci alpha suñu xarit macha allah di nit ku baax nit ku attentif ku am am yéene ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu baax a baax boola mi nga xam ne moo nekk ci caméra bi boola da ngay nuyoo ci caméra bi boola nuyool ma xool voilà boola nuyoo na kooku sama xarit la madame Ndiaye waaye di nuyu sëñ Matar caw laay nga xam ne tabaski bi Matar Thiaw lim ma jox ci teraanga mataar ku la defal lu baax wax ko ku déggul sa tur ci émission bi xamal ne tabaski bi réa zéro sëñ Matar Thiaw laay Makhtar laay Seydina laay Issa sama marandal géej gi yàlla yàlla defal jàmm borom Malika Matar Thiaw laay nekk fii ci RTS yor wàllu infographie yàlla defal la jàmm boola wane na boppam soo doon wane sa bopp noo koy wane après tabaski bi ma xool ba xam ndax xar mi nga lekk neex na wala neexul xarisa nooy def ah, ca dézoomé ba la léegi nag ñu seeti Ndiaga si Ndidi Ndiaga si Ndidi boo doon tàggatoo looy tàggatoowee laay léegi laa Ndiaga si Ndidi sama rakk ji gis ngeen fa mu génn xale la waaye am na jom yàlla yàlla fa la cat lumière yi rek seen a fa nekk seen lumière boo fi nekkoon nooy wane sa bopp seen jërëjëf kontaan nañu ki nga xam ne nii mooy Omar Ndiaye moo nekk ci bi Omar Ndiaye maa ngi ci large bi Omar Ndiaye boo doon sa bopp nooy wane sa bopp. laay lay la laa sa suite seba la Omar Ndiaye merci beaucoup ki nga xamante ne bii mooy vidéo mobile Matar Dieng moo fa nekk Matar Dieng soo doon wane sa bopp ci vidéo mobile nooy wane sa bopp. Matar Dieng merci waaye Abdallah moo nekk ci li nga xamante ne bii mooy vidéo bi euh, montage bi waaye du ma ci ñëwagum damay yor son bi Nicole tey son bi su ma la waxoon ne la waneel sa bopp boo doon wane si son bi nooy wane bopp ndax da ngay transformer en voix wala noo def ma wax xool ba xam nooy def si son bi allo Nicole allo Nicole Nicole ça va ci loo nekk yaa ngi ci jàmm bonjour c'est la RTS ay ca kookoy Nicole nekk ci son bi léegi nag ñu seeti Abdallah le grand monteur Abdallah yow miy monté émission mi nga xam ne yaay lokkati rétro yi mi nga xam ne yaa koy dajale Abdallah boo doon wane sa bopp nooy waaw waaw kooku Abdallah léegi nag ñu seeti ki xam na mooy coordonnateur émission bi Khady Racine ñu nuyu la Khady Racine soo wane sa bopp Khady Racine naka ngay wane sa bopp Khady Racine wane sa bopp. Khady na boppam kon nag mbokk yi lii mooy émission rétro waaye nag morceau bi di waaj a ñëw dañ koy may un grand monument de la musique sénégalaise nekkoon Aswali Asamaan xam naa ne parcours sax bu ñu ko naree lim fi ñuy fanaan waaye dañu leen siy tënkal tuuti rek parce que nag kookoy borom le pardon def musique yëmbal. produit artistes yu bari ñu bari jaar ci moom studio am enregistré fa ay Abu Juba ay Fatou Lawbe ay Nabou Yadane ak ñeneen nag ñeneen damaa tënk rek monsieur Gueye monsieur Gueye monsieur Gueye Ndiaye xam nga li may monsieur Gueye Ndiaye kooku la Baba Diallo way keroog way wu rëy mooy bi naan waa ba looy laaj sangali nga monsieur Gueye Ndiaye la ci way way wu rëy tonton aada ak si la muñal dugg ci vidéo clip bi toj ko kon monsieur Gueye ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér monsieur Gueye Ndiaye magi lay ndand Fall ñu ngi lay ziar borom la pardon borom yëmbal le grand musicien xaritu Youssou Ndour xaritu artistes yi nee ma Horatio dama bëgg présenter sama sa tabala géant bi euh, bu mag bi nga xam ne moom bëgg présenter son son excellence chef de l'état inshallah allahu rabbi di nga dem pré pré wan présenter leen ko wan ko ministre de la culture. Khadija nekkoon ci caméra bi Ndiaga Sidibé nekkoon ci caméra bi ki nga xam moy bolam Bola Maram Ndiaye nekk ci caméra bi ki nga xamanteni ne bi Abdallah ci ci lumière bi.

doomu nañ cuq njaag borom bëgg leen Amar Ndiaye ñu dem seeti Baba Diallo baaba looy laaj morso baa ngi tudd alal suñ fa jógee nag dem añi tey nag lu ñuy añee ci xujja lu ñu fay añee ceebu jën mbaxalu saalum ñeleng maafe dama daa suppu kànja wóoruñu ñu dem seeti ko te ñëw Baba Diallo